kitaabun bihi narju minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa uxra minal karbi. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bokki jullit yi bokki taalibe yi. njabootug lislaam taalibey na Ahmadul Xadim yi toogaat nañ ci jataayub barkeelu di jataayub séentu ngëneel waaye di jataayub boroom ngërëmul yàlla muy jataay ban muy jataay bii nga xam ne ci la ñuy waajal dëgmal bisub jàmbaari lislaam ja nga xam ne liggéeyal na lislaam ba am ngërëmul lislaam liggéeyal yàlla ba am ngërëmul yàlla liggéeyal seexuna ahmadul xadim ba am ngërëmul sëriñ Touba liggéeyal doomu aadama yi ba làq seen ngërëm kookee moo di cheikh mahamadul fadal Mbacke moom sëriñ Touba xaadimu rasul bisam bii nga xam ne ci la yàlla rañaane woon Moustapha sallallahu alayhi wa sallam jox ko sërite bi nga xam ne képp ku ci tënku ñu lay wooye ab jullit ku ko bàyyi ñu tudde la neneen muy julli yu juróom kooku la bisam dëg malaat moo tax ci njiitul sëriñ Abo Baraka xalifatu cheikh mahamadul fadal mu ànd ak ay rakkam sëriñ Basiiru cheikh Abdoul Fatah nekk nii toog dend ak cheikh Mahamadou Mourtada ak seen i ñu delluwaat nag na ko seen wayjur wa baaxoo defee duñ def dara ca teguñu ko ci ndigalu sëriñ Touba. seeti cheikh Mahamadul Muntaxa seen mag di seen sëriñ ba mu jox leen ndigal li yeesalaat bis bi ñu fas ko yéenee woote mbokk yi bis bi nga xam ne ci la njàqare yëpp di dañee. borom xar kanam ba nga xam ne fu waay masaa tiite boo jàkkaarloog moom soxol sedd guy kooku bisam moo dëgg malaat alhamdulilahi rabil alamin bi Sénégal ubbi waaye ubbi ko nag ci weer wii nga xam ne mooy weer rajab ci bisub ki nga xamante ne bii moo dëg maloon nu tëj réew mi tey ji bisam dëg malaat nu tëj réew mépp di Cheikh Mahamadoul Fadal Mbacké yal nañu ko yàlla fayal moo tax ni ngi toog ci jataay bi feggoo ak Serigne Abdoul Fatah moom Cheikh Mahamadoul Fadal Mbacké di jëwriñu sëriñ Abo di jëwriñu Cheikh Mahamadoul Basir mu dend ak Cheikh Mahamadou Mourtada danañ jël kaddu gi suñu noppee Serigne Thierno Diaw ko xam xam Cheikh Mamadou Fadal moom ma nga xame woon ne nee na ko woon la sa ñu mu dew paxa yan woon boo toogee fii ma teg ko ci sa loxo moo toog nii dend ak ñun ñu noppee jox sëriñ Xaadim Mbàkke moom Cheikh Abdoul Fatah bu noppee jox sëriñ Alhaaji Fàllu Ndiaye su noppee ñu jox sëriñ moo taan ma nga xamante ne bii moo jiite waa Ndakaaru waaye loolu lépp nag ñu def ko ci teewaayu sëriñ Ahmadul Badawi mi Cheikh Abdoul Fatah tànn mu jiite organisation bi ànd ko ak ay rakam ak i jarbaatam bis bi ne lay doon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru tubaab nee na mi ngi nuyu bokki taalibe yëpp. nuyu bokki jullit yëpp. di nuyu bokki jullit yëpp. bàyyiwul kenn. nee na bàyyiwul kenn. di am mbégte mu rëy rëy. di am mbégte mu rëy rëy. ñu di ko séenu. ñu di ko séenu. ci weer wi wu tedd wi ñu nekk. ci weer wu tedd wii ñu nekk. ni ko sëñ Gaspar ma waxee léegi rek. niñ ko waxee léegi rek. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ca lañ ko rañaane woon. mu jaar madinatul aqsa. mu jaar madinatul aqsa. sunu borom yéege ko ba ci kaw mu def moom. sunu ko ba ci kaw mu jëflanteeg moom. may ko lam ko may. may ko fa lam ko may. ay ngëneel yu bëree bëri. ay ngëneel yu bëree bëri. bokk na ca nag. bokk na ca nag. loo xam ne jullit yëpp ñoo ko bokk. loo xam ne jullit yëpp ñoo ko bokk. muy julli juróom. muy julli juróom. maanaam ku ko def. nga xam ne ku ko def. ëllëg ëllëg. sama borom àjjana lay fayee. sama borom àjjana la lay fayee. kon bis bu am solo la. kon bis bu am solo la. doo ci am koo xam ne nag. ñu am ci nag koo xam ne. gan gu tedd. gan gu tedd. gu baax. gu baax. gu bëgg sëñ Touba. gu bëgg sëñ Touba. di taalibeem. di taalibeem. muy Cheikh Mouhamadul Fadal. muy Mouhamadul Fadal. ci ci guddi googu. ci guddi googu la feeñ. muy guddi gu mag muy guddi gu màgg. non moom moom ñu am kóolute ne. ñu am lu ci waay ñaan. lépp lu ci waay ñaan. sunu borom dana ko defal incha allah. sunu borom dana la ko defal incha allah. kon noo ngi nuyu ñëpp. kon noo ngi nuyu ñëpp. di jiital sunu sëriñ. di jiital sunu sëriñ. sëriñ Abou Baraka. sëriñ Abou Baraka. mi toogal sëñ Cheikh Mamadou Fadal mi fi toogal Cheikh Mamadou Fadal yàlla na fi yàgg te wér yàlla na fi yàgg te wér njabootu Cheikh Fadal bépp ak njabootu Cheikh Mamadou Fadal gépp njabootu sëñ Touba gépp ak njabootu sëñ Touba gépp ci turu jawriñam ci turu jawriñam ak njabootam gépp ak njabootam gépp ci turu sunu si mi ci turu sunu mag ji di Cheikh Abdul Fatah mi moo yore kaddu kër gi nga xam ne moo yore kaddu kër gi moo jox ndigal sax moo ma jox ndigal sax waaye ne kon du ma wax waaye ne kon du ma ñemee wax waaye moo wax waaye moo ma ne naa wax nuyoo nuyoo bi yëpp nag. nuyoo bi yëpp nag. noo ko jox sunu sëriñ. noo ko jox sunu sëriñ. Cheikh Mountakha. Cheikh Mahamadul Mountakha. Xaadimu Rasul. Xaadimu Rasul. yàlla na fi yàgg te wér. te yàlla na fi yàgg te wér. ci barke Sëñ Touba. ci barke Sëñ Touba. liggéey naal yi mu naalal Sëñ Touba. naal yi mu naalal Sëñ Touba. muy université bii. ci université bii. yàlla na sunu borom àggale na ko bëggee. yàlla na ko sunu borom àggale na mu ko bëggee. ba àgg na mu ko bëggee. mu àgg na mu ko bëggee. mu naal yeneen yoo xam ne ñëwagul sax ci kanam. mu naal yeneen sax yoo xam ne ñëwagul ca kanam. lépp ñu ànd ak moom. lépp ñu ànd ko ak moom. ci barke Sëñ Touba. ci barke Sëñ Touba. sëñ Fata noo ngi siyaare bu baax bu baax. Euh, gi teew fii. ci teewaay gi nga toog fii. jàpp nañu liggéey bi. jàpp nañu ci liggéey bi. def sëñ Ahmadou Badawi muy jëwriñ ji. def Cheikh Ahmadou Badawi muy jëwriñ ji. loolu Mbàkke lu am solo la. nee na Mbàkke loolu lu am solo la. kon nag bis moom. kon nag bis bi moom. nañ daa waxee rek. nañ daa waxee rek. lu ci waay bëgg na ko ñaan. lu ci waay bëgg na ko ñaan. dana ko am dana ko am incha allah. nañ ko daan defee rek. nañ ko daan defee rek. man fas fas nañu yéene. ñun fas nañu yéene. ci taalube ci taalube ak ci dal ak ci dal ak berne berne yu bëree bëri rek ak berne yu bëree bëree bëri yoo xam ne ku fi jógee yoo xam ne ku fi jógee da nga xam ne da nga xam ne Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Mamadou Fadal am na teraanga am na teraanga ju rëy am na teraanga ju rëy yoo xam ne ñun ñii yoo xam ne ñun ñii ñun ñoo ko mën a wane ñun ñoo ko mën a wane kon nag fay bis bu ñëwee kon nag bis bu ñëwee lu waay am rek lu waay am rek na ko ci def na ko ci def tey sàkku ngërëmam tey sàkku ngërëmam am nañ yaakaar ci ne am nañ yaakaar ci ne daañu ko am incha allah daañu ko am incha allah magal gii magal gii Cheikh Moustapha Fadilou Cheikh Mouhamadou Moustapha Fadilou moo ko njëkk a woon moo ko njëkk a tàmbali 1971 1971 di ci dem ba fekki waajuram ba di ci dem ba fekki waajuram ba Cheikh Mouhamadou Fadal Cheikh Mouhamadou Fadal yàlla nañ ko yàlla fayal ginnaaw bi alaaji Mouhamadou Lamine Baara toog di dox na sëñ Moustapha doon doxe mu doxe ko ni mu doxe ko ni ba fekk sëriñam ba ba fekk sëriñam ba Sëriñ Fadal Cheikh Mamadou Fadal Abou Baraka mi fi nekk sëñ Abou Baraka mi fi ne yàlla na fi yàgg lool Mbàkke te wér yàgg lool lool lool yàgg lool lool lool ñu yàgg ci ginnaawam yàgg liggéeyal sëñ Fallou yàgg liggéeyal sëñ Fallou moom it mu wax ne fa magam jaaroon rek fa magam yee jaaroon fas yéene fa la fas yéene jaar euh, loolu xam nañ ko bu baax loolu xam nañ ko bu baax mi ngi koy doxal bu baax mi ngi koy doxal bu baax noonu na xam ne moom it na xam ne noo ngi ci ginnaawam rek noo ngi ci ginnaawam rek ñun njabootu sëñ Fallou gépp ñun njabootu sëñ Fallou gépp képp ku jubóog sëñ Fallou rek képp ku njabootoo ci sëñ Fall. non non ñëpp ngi toog ci ci ci ci ci kii bi ci. ñun ñoom ñëpp ñi ngi toog ci barab bii. waaw kon noonu fas nañu jàppale jàppale bu baax rek. kon fas nañ ko yéene jàppale bu baax. fu mu gëstoo gis nu. fu mu gëstoo gis nu. fas nañ yéene loolu baax. fas nañ yéene loolu baax. màggal gi ñoo ngi koy séenu. màggal gi ñoo ngi koy séenu. ñaan ñëpp ñëw jàmm. ñaan ñëpp ñëw ci jàmm. dellu jàmm. dellu ci jàmm. dara bañ a xewlu jàmm rek. dara bañ a xewlu dul jàmm. ci barke Cheikh Mamadou Fadal. ñu xam màggal gi. ñu xam ne màggal gi. ñoo ko bokk nag ak njabootu sëñ Tuubaa gépp. ak dongo yëpp. ak taalibe yëpp ak taalibe yëpp rek ak jullit yëpp rek bàyyiwun kenn ñëpp la ñaan bàyyiwun kenn ñëpp ñaan ku mën na nga ñëw bis bi ku mën na nga ñaan la nga soxla ñaan la nga nag ñaan suñu borom nag ñaan suñu borom nag ñu def jàmm ci réew jàmm ci réew mi ñu ngi ñaan waa daayira Moukhaddamatoul Khidma moo ñu ngi ñaan waa daayira Moukhaddamatoul Khidma ñu yor jumaa ak li ko ñu yor jumaa ak li ko wër ñaan ñi fi ñëw ñoo ñu ñaan ñi fi ñëw ñu ormal sëñ Touba mii ñu ormal sëñ Touba mii sëñ Touba kat sëñ Touba kat sëñ Mountakha nee na sëñ Mountakha nee na sëñ Touba sëñ Touba ko malaaka yóbbu ko ab yoon yóbbu ko ab yonent yóbbu ko waaw ku malaaka yóbbul nag ku malaaka yóbbul nag ab yonent yóbbu ko ab yonent yóbbu ko mbindeef waru koo yab mbindeef waru koo yab waru koo yab kat waru koo yab kat sëñ Muntaxa moo ko wax loolu sëñ Muntaxa moo ko kon nag dëkk bi kon nag dëkk bi dëkkub sëñ Tuubaa la dëkkub sëñ Tuubaa la nañ ko ormaal nañ ko ormaal ci ci doxin. ci doxin. jëfin. jëfin. ci solin. solin lépp lépp bu ñu ko defee rek. lépp bu ñu ko defee rek. tam su suñu njëriñ la doon. suñu njëriñ rek lay doon. sëñ Fall daa waxoon ne. sëñ Fall daa waxoon ne. yett yett dañu nuroo da bokkuñu. yett nuroo nañ ca bokkuñu. ragal. ragal. ormal. ormal wattandiku. wattandiku. nee na ormal moom. nee na ormal moom. yàlla moo ko jagoo. yàlla moo ko jagool. ndax moo moo bind ci coobareem. ndax moo bind ci coobareem. te tàggul kenn. te tàggul kenn. bu ñu fi jëlee. bu ñu fiy loo def. te loo def. moom. mi ngi jàkkaarloo moom. moo kon moo mat a ragal. ormal ormal. nit ku baax. nit ku baax. bu dee dund. bu dee dund. ormal ko. ormal ko. bu fi bàyyi ko. bu fi bàyyi ko. ormal ko. ormal ko. wattandiku nag. wattandiku nag. ñu ñu ñu dëng ñi rek. ñu dëng ñi rek. ñi nga xam ne jëmuñ fenn. ñi nga xam ne jëmuñ fenn. loolu la sëñ Fall wax. loolu la sëñ Fall wax. kon sëñ Fall. kon sëñ Fall. non non sëñ Fall di déglu ndigal rek. ñoo ngi sa ginnaaw di déglu ndigal rek. te fas yéene màggal gi na nga ko defee rek. te fas yéene màggal gi noo ko defee rek. incha allah incha allah noonu la ko defee. noonu lañ koy defee. noo ñaan ci réew mi. noo ngi ñaan ci réew mi. jàmm am fi. jàmm am fi. jàmm ah, mu am Afrique. jàmm am Afrique. fépp rek. fépp rek. rawatina Touba gi ñu dëkk. rawatina Touba gi ñu dëkk Touba dëkk sëñ Touba la ndax dëkk Touba sëñ la dëkk bu sell la dëkk bu sell boo xam ne kenn waru def lu noonu nañ war nañu def lu dul noonu kon nañ fi wattandikoo def lu dul noonu xam lu ñu lu def lu dul noonu ñun ñi ñoo ko yëg ñun ñii ñoo ko yëg waaye moom waaye sëñ bi moom yàlla defaral na ba noppi yàlla defaral na ko ba noppi kenn moo yàqal te kenn mënatu koo yàqal kon nag ñoo ñaan ñoo ñaan ñëpp ñëw jàmm mbas mi nga xam ne moo ne ci réew mi mbas mi ne ci réew mi yàlla yàlla sëñ Touba ci barke sëñ Touba dafa am loo xam ne dafa am loo xam ne màggal gi lu ci am solo la moo ci ëpp doole te moo ci ëpp doole njàngum alxuraan muy njàngum alxuraan ak xasida yi ak xasida yi salaatu ala nabi. sëriñ Maam Mor mbakke moom Cheikh Mamadou Fadal. yal na yàlla yokk leeram. taasuñ ci barkeem. moo yoroon njàngum alxuraan mi. moo yoroon njàngum mi. mu wàcc ab liggéey. Cheikh Mouhamadul Fadal. sëñ Aboo tànn sëñ Xabaan. wax ko sëñ Muntaxa. léegi moo yor njàngum alxuraan mi. lu waay jàng ci ab lim. na fexe ba yónnee ko sëñ Xabaan. mu xam ko loolu mooy ndigal li. asalaamaaleykum. Serigne Thierno Diaw mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah. nee na ñoo ngi nuyu bokki julit yëpp. nee na ñoo ngi nuyu sunu sang yi teew fii. kii nga xam te kii nga xam ne moom la ñuy wooteel. day woote boo xam ne. dañ koy aj foo xam ne man fa laa ko daan aj ba tey. yàlla moo ko aj foofa. moo mu ne aaya bi sunu borom subhaanahu wa taala wax ci alquran rek. Mm-hmm. ci ñi nga xamante ne bii. seeni wayjur nekkoon nañ fa seeni sat doonu leen. Mm-hmm. nee na loolu rek lay waxal. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sunu maam Ibrahima. sunu maam Ibrahima. moo yoroon yoon woo xam ne. moo yoroon yoon woo xam ne. yoonu yërmande dong la. yoonu yërmande rek la. sunu borom yonent bi jaaral ci yoon wax yonent bi na ko jaaral ci yoon wee sa maam Ibrahima jaaroon. mu jaar ca mu jaar ca. Euh, ko jaarloo kooku fan ko jaarloo jaar na fa. Serigne Touba ñëw jaar ci yoon woowu yi. doon ko ci lépp. ko ci lépp. moo tax mu moo wax ne yaa maalikal mulki. yaa man jalla an xawadin. irham jamii hal wara. yaa haadiyan rada. nee na alwara kenn génnu ci. yërmaane yàlla jooju sunu borom ëmboon jaare ko ci yonent bi. jaare ko ci yonent bi. ci yonent yàlla Ibrahima. jaarale ko ci yonent yàlla Ibrahima. digal yonent yàlla yonent bi mu topp ko. digal yonent yàlla Mouhamed mu topp ko. Serigne Touba teg ci tegu ci tegu ci yoon woowee. Serigne Touba ñëw tege yoon woowee. moom bi mu ñëwee. Serigne Fallou moom bi mu ñëwee. ñett yooyu yëpp. ñett yooyu yëpp. da koo boole. da koo boole. teg ci tànkam. mu ci tànkam. mosu ko teg benn yoon. yërmande rek. ci mbindeef yëpp jullit ak yéefar. jullit ak yéefar. tijaan ak murit. tijaan ak murit. xame wu ci kenn. xame ci kenn. amu xam amu xëj ak seen. nee na amutoon xëj ak seen. yërmandeem yërmandeem. xajoo na adduna bépp. xajoo woon na adduna bépp. ñooñu rek la royoon nag. ñee na ñooñee rek la royoon. ñooñoo toppoon bee. ñooñu la toppoon bee. suñu borom wàcce ko. ba suñu borom wàcce ko. nag wuutul ko boppam ci bisam bii. ak yërmandeem ji mu yor. yëpp la yoroloon njëriñ. mbindeef yëpp la yoroloon njëriñ. zahir ak baatin. zahir ak baatin. amul xëj amul seen. loolu moo doon aw doxinam. ñaari xisa rek laa ciy leeral benn bi. benn bi. Euh, ca ca Matam. ca maatam sandarma yi dañoo jàpp ab camion bu fees dal ak pepp. sandarma yi dañoo jàpp camion fees dal ak pepp. ka koy jaay. ka koy jaay. du du du du murit sax. du murit sax. mu ne leen sëñ Fallou ko mu ne leen dugub ji ma yor sëñ Fallou ko moom. ñu ne ko woo Matar Seen. nee na ñu woo Matar Seen. Matar Seen woo sëñ bi. Seen bi. sandarma yi dañ laa dañ laa soxla. mu wuyu leen. mu wuyu leen. ñu ne daa am fii oto bu fees dell ñu ne ko daa am fii oto bu fees dell moom di ko joxeloo ay ñu ne ko yaa moom di ko. maa ko moom. sëñ Fall ne leen maa ko moom. bàyyi leen oto bi mu dem maa ko moom. bàyyi leen oto bi mu dem maa ko moom. xamut sax kooka. xamut sax kooka. kooku jooju yërmaane mënees ko weesu. jooju yërmaane mënees ko weesu. 1956. 1956. sëñ mu sanc ko. ñu yendoo jàng. fanaane ko. fanaane ko. mu yëg ci kaw. mu yëg ci kaw. ndakaaru gépp leer nañ ndakaaru gépp leer nañ mag ñu ko mag ñu bari wër ko mu tey jii day mu ne tey jii day ñaan naa ko fanaan ndakaaru doo dem sawara doo dem sawara mbay ndaw na mbay ndaw na ko lakkri lay tubaab yi nag tubaab yi nag sëñ bi ne ko soof nga bi ne ko mbay soof nga dangaa soof dangaa soof tubaab yi dañu yi dañ ju doomu aadama man doomu aadama rek laa wax man doomu aadama rek laa wax bàyyiwuma ah, kenn ah. nee na loolu 1950 loolu la doy na ci firndeel rek yéen yéen yërmande yi sëñ Fall nee na loolu doy na ci firndeel yërmande ji sëñ Fall ambal mbindeef te amu ci xaj ak seen te amu ci xaj ak seen kon nag koo xam ne kii koo xam ne kii bëgg nga njëriñul àdduna baa nga bëgg njëriñul alaxira bisam bii boo ci ñëwee da nga ko am noo ko bëggee rek nga koy amee ca kenn du la ci ëpp la itam. ndax moom li mu yoroon du jeex xaw li mu yoroon du jeex faw. yàllaa ko joxoon ak sëñ Tuba ak akub liggéeyam. te yërëm bi def rek la daan liggéey. gannaaw bu ñu siyaaree suñu kilifa bopp yi ci seen ndigal ci njiitul sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdul Karim ak ki njiitul sëriñ Baye Ndam Fall mi nga xam ne moo jiite en fait Cheikh Modou Fadel ñu àndandoo di woo seen bokk bopp yi ci bis bi nga xamante ne bi baaxoon nañ ko def fii ci kër Cheikh Modou Fadel buñ ne gannaaw suba la. màggalu kasu rajab ren nag mu war a tolloog euh, le 26 février fii ci kër Cheikh Modou ci 21h incha allah lay tàmbali ren nag ñu ngi ko tuddee ku mag ci kër Cheikhul Khadim ku mag ci yoonu murit ku mag ci kër Cheikh Modou Fadal muy Serigne Issa Dieng. Serigne Issa Dieng borom Dieng ak kenn ku ne xam na ne mu ci kër sëriñ bi kenn ku ne xam na ne mu demoon ak Cheikh Modou Fadal moom la suñuy kilifa tàmm tànn. def defloo ñu bis boobu te le siis ñu di ko yëgal mboolem afaati kër sëñ Touba yëpp tàmbalee ci Cheikh Mamadou Moustapha ba ba ci ko soxna Faati ba ci ko soxna May góor ak jigéen ñu ngi ko yëgal ñëpp waaye di ko yëgal seex si yëpp it fu ab seex mën nekk ci biir dëkk bi wala ci biti dëkk bi ak fu ngeen mën fu mën a nekk rek seeti sëriñ si seex boobee ñu ngi leen ko yëgal góor ak jigéen mag ak di ci soññ ñëpp di ci soññ axambaati Cheikh Mamadou Fadil yëpp ñu góorgóorlu ci waajal ko ndax ñu mën a teertu gan ñi ñu egsi ci jàmm salaam ñu teral leen ngir jëmmi yàlla ak yonent bi Cheikh Modou faadal mi nga xam te ne xaritu ñëpp la. ni ko sëriñ Cheikh sëriñ Thierno Diop waxee lépp waxee léegi rek lépp ñëpp ku ñëw jël sa wàll ku ti sa wàll de mi ngi fi di toog di la xaar. ñu ngi lu ñëpp ci kàddu yi nag asalaamaaleykum. Euh, li ñu di wax rek mooy leen daan wax rek lay ni waxatee muy ci turu turandoo sëñ Fallou yi nga xam ne damay faral di wax ne màggal gi moom màggalu turandoo yi la. ndax màggalu Cheikh Mamadou Fadal la ci ñun la yàlla baaxee ñu tudd ñu Cheikh Mamadou Fadal kon nag màggal gi sunu màggal la kon képp ku ci ñëw rek damay jàpp ne daf ñuy jàppale si kon nag dama bëgg ñun furandoo yëpp xam ne màggal gi suñu màggal la nan daan taxawee ñu taxawaat ko naka nañ daan taxawee mooy wàllu bernde yi nga xam ne moom lañ caajoon muy diggante njaareem ak Touba bernde yi ñu leen ñu ngi koy feddaliwaat waa Ndakaaru itam boisson bi nga xam ne fàllu yi sasoon nañ leen ko ñu ngi koy feddaliwaat waa Tamba itam matt bi ngeen daan andi ñu ngi koy feddaliwaat waa Thiès moom itam suukar see café gi nga xam ne ko daan ñu koy ndax gan yooyu yëpp ñu leen war a teral ci ci bagage ci loolu loolu lañ leen war a teral kon nag képp ku ci dégg suñu kàddu rek foo mën a nekk ci yor section na nga préparé ca waajaat na nga gën a waajoo ndax ren jii kan gi nekk na màggal goo xam ne nañ ko ndax Cheikh Moudou Fadel moom waxtu ne at yi yëpp gi daan nañ ko ci màggal waaye nañ ko daan màggali desoon na ren nag dañoo fas yéewaat màggalaat ko nañ ko daan màggale kon nag ñëpp nañ takkuwaat taxawaat cee ànd ci liggéey bi gannaaw loolu tam lan naan fàttali muy jàngum alxuraan ci fàllu mu ne ñiñ la sase woon fàllu mu ko addiyee Cheikh muy yonent bi ak sëñ Fallou boobu moom itam ñu ngi koy tàmbaliwaat di ko wax Fallou yëpp bu dee Fallou mu daw ca mënu ko na ko waajuram moo fay fayal donte woo jàngal ci kaamil ñu jàngal ko kaamil ndax alxuraan jooju kat moom moo ëpp kon nag kon bisam bu ñëwee alxuraan ji war na njëkk xasaay di kon nag nañ ci jàpp képp ku di Fallou rek kaamil alxuraan ba nga daan jàng ñi ngi wax ñaan nga jàngaat ko defaat ko addiyam kon nag loolu moo gën ci ñi nga xam ne reçu yi ngi daan dagg ngir fàllu yi kenn ku ci nekk ñu ngi fàttaliwaat reçu ba nga xam ne yaa ngi ko daan dagg itam nga daggaat ko ngir mooy addiya ji nga xam ne moom lañ fas yéenee di dajale di ko jëbbal si Amadou euh, Cheikh Aboul Baraka mu di ñu ko defal fu baax mu ci dañ ci ëppi suñu addiya nag liñ jëbbale woon lépp mu ngi woon ci jumaay Patte d'Oie yi nga xam ne sëriñ bi liggéey na ko liggéey ba nga xam ne yaakaar naa ni fi mu ne àgg na ci toll ci ca cappaandaw lépp luñ ma sonn seet euh, dajale foofu lañ ko daan jox mu jëmeel ñu ko kon nag nañ waajaat ba fas yéene waat takkuwaat ca xam ne màggal gi suñu màggal la képp ku ci ñëw ñun lay dimbale nañ fexe ba màggal ko màggal gu mat sëkk gomel gën xam ne gu raw gu daan yëpp ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di soññ section yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi ñu ngi jégalu bu baax kàddu yi ñu fa yëkkati di la nuyu di la siyaare di jël suñu nuyoo ak suñu siyaare sa Abou Mbacké Fallilu di ko teg sa loxo nga jotal ñu ko jotal ko mboolem ñi nga bokk sëriñ Fallilu gannaaw loolu li ci waroon a wax lépp nit ñi wax nañ ko fàttaliwaat rek ci màggal gi màggal ak sëñ Fallou moom bu ñëwee kenn ku ne na jàpp ne yëfi say fi bopp la waaye rawatina nag ñun waa Ndakaaru ndax dañ cee am ñaari mbir màggal gi dañ koo santaane mu war ñëpp ñun ñu tam ñu jox seen digal loo xam ne bisu màggal gi lañ ñu ko jox feek bisu màggal gi ñëwut digal la beesut ñun kon li fi waxaa rek fàttali ndigal lañ ñu joxoon ne bu màggal gi jotatee nañ àndandoo def combat ñëw fekk sëriñ bi fii kon ñu ngi koy fàttali bépp daayira ak képp ku ci nekk ci Ndakaaru digal la ñu sëñ bi joxoon màggal yi passé defuñu ko woon waaye màggal gii dañoo bëgg del comme joxaat nañu ci digal ñu defaat ko nañ ko doon defee na mbooloo mi yëpp daje ca Padoa ñu jël ay oto indi sëñ bi mbooloo loolu lañu ko sëñ bi sant woon ñu ngi soññaat tam président daayira yëpp nañ ko daan defee teel indi seen keesi daayira saa bu wee ca barab dañ fa fekk ñu ko daan jël ñu daan leen fa fekk muy fàlluka ak moo Moor Jóob ak sëñ Moodu Ngom ñu nga ca mbaar ma képp koo xam ne ba ngaa jël oto itam di tàmbalee suba ba ba ñu gannaaw suba la bis bi képp ku fa ñëw te bëgg a jël oto boo ñëwee danañ la jëlal oto yaag sa daayira nga ñëw ànd ak mbooloo mi ñëw ñu ngi ci soññu ñëpp di ko di ko yeesalaat dañ ko doon yeesal di ñaan itam autorité yi nga xam ne ñoo nekk ci yoon wi ñu dimbale nu ci convoi bi jógee di ñëw fii jàpp na ñu yoon wi bañ mën a ñëw nañ ko bëggee di yeesalaat di fàttaliwaat itam tam ñi nga xam ne ñi ñu yor frontières yi muy douane ak police nañ ko daan defee di ko jàpp ne ni ñu ci màggal gi daaw ji am na jafe-jafe yoo xaw a am ci Rosso Mauritanie ba am na ñoo xam ne sax seen bagage yi ñu doon indi dañ ko faa bàyyi ba bi ñu dëppee lañ woo directeur directeur wax ñu delloo leen ko kon nag ren ñu koy fàttaliwaat euh, directeur de douane ak commissaire bi nga xam ne bii moo nekk ci commissaire yaa bu nekk ci Rosso nañ jàppale taalibe yi ci ñëw gi ñuy ñëw bu ko defee ñu mën a teel a ñëw mën a teel a delluwaat loolu daal la ci doon fàttali ñu soñu ñëpp. jërëjëf mbokk yi ñoo jot a dégg kàddu yi waaye may fàttaliwaat kàddug taalibe sëriñ fallu bu warmaal sëriñ Touba mu di Cheikh Abdoul Fatah nee na dafay ñaan di yalwaan dongo yëpp képp ku tudde Cheikh Mamadou Fadal aw turando nga bañ di ko sàllawlu ndax nee na kilifa kenn du ko sàllawlu kon ñëpp ñuy maase di wax sëriñ Falilou wala ma Mamadou Fadal woote baa ngi noonu ñuy fàttali bokk yi nga xam ne ñooy màggal si di dem ci barabu Cheikh Mamadou Fadal bi ci biir jumaa ji dañ faa teg ab daayira boo xam ne ñoom lañ fay liggéeyloo muy waa daayira Muxaddamatul Xidma ñi ngi soññ ñëpp ci nekkiin wi ak colin wi ak doxin wi ca biir jumaa ja te xam ne foofee la Serigne Touba tëdd fa la Cheikh Mahamadul Fadal tëdd kon kuy caaxaan waroo jëm foofa. mbokk yi bis baa ngi noonu Serigne Alaaji wax na ko ñun ñi yàlla taw feexee la nag ñu am loo xam ne kuy ñëw ci màggal gi moom nga bëgg waaye ñun ñoo ko am bu garanté mooy ñun ñun tudd Sëñ Fallu sa ndey dem àjjana sa baay dem àjjana nga dem àjjana te ko ñun lañ ko defal kon nag fu am fallu mën a nekk am Sëñ Fallu mën a ne na wàcc ñëw bis baa ngi noonu képp koo xam ne xat-xati jamono jàpp na la wala njàqare jàpp la ñëwal ci bisub Cheikh Mahamadul Fadal te fas ci li nga bëgg soo àndee xol bu sedd xol bu sell ak yéene ju sell ñëw ci bis bii lépp loo ci dagaan da nga am ñoo ngi ñaan yàlla mu fayal ñu mag ñu jiitu woon tàmbalee ko Cheikh Mahamadul Fadal teg ci Cheikh Mahamadou Moustapha Falilou waaye nag njabootu sëñ Fallou ba agsi ci sëriñ Mamoor mii mujj a wàcc ab liggéey yàlla fay ko ci daraje alxuraan fay ko ci barke baayam ba ñuy bi nee mi ngi fàttali màggaluk alaaji Mouhamadou Lamine Baara moom bu ñu suba la màggaluk sëñ Fallou lay doon war doon kon le 27 cérémonie bi le premier lay doon incha allahu rabbi di amee fii ci kër bi bu fukki waxtu jotee ñu ngi ciy séentu ñëpp wasalaamualeykum wa minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa ukhra min al karbi